astaxfirullah alxadim tuub naa bu wér la ma way keneen na ma yàlla baal yam naa ci dem su ma dee ku doon ak goro su set du ma way keneen ku la weesu ndax yowatee ma ma doon ku nu jàpp jam su ma dee ku doon ak goro su set

mana sab géwal man Bamba Fay nee naa la naam yawa way yonen ba far la jox ndono lam yoroon nga di genn góor gu fi dootu ñaare bila malaam kële moo di kii kile wuñ la fi kee bawoon kile moo ko fa mu tabbal jibaam kële moo di kii kile wuñ la fi kee bawoon kile moo ko fa mu tabbal jibaam kële moo fi bay toolam mu ñor wuutal fi kii ba fi kee la ko naaf ku ñëw yanu fukki mbaam kële moo fi goro ngirum siraatal mustaqim gile moo fi ñëw yeesal ko tey ku mu neex ngara kële moo fi ñëw wudd sal lu njub ba mu mat mu dem kile moo fi ñëw tàggat ko tey mi ngi njàpp basaam kale moo fi ñëw gafteenu imaan bam xasaw kale moo ko xëy ban tey ku ñëw mana